bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné ci suñu chaîne youtube ndax mooy tax bépp vidéo bu ñu dugal ngeen mën koo am incha allah ni ñuy abonné wee nag yomb na bësal fii nga xam ne mooy la ñu bind j'abonné gis ngeen noonu abonné nga bës tous notification boobu ñëw ca kaw fu ñu bind tu nga bës ko incha allah bu ngeen paree tam ngeen zem vidéo bi ndax mooy tax ñu gën leen a andi ay secret yu gën a kéemaane zem bi mooy waral ñu xam ne yéen a ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax asalaamualeykum wa rahmatullah aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashaabihi zawi ridwani wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ñuy seetaan ñëpp di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen di leen baalu xaq di leen baal àq tey ñaan yàlla suñ borom subhaanahu wa taala mu boole nu jéggal suñuy xaq yu dox suñ digganteeg moom ak suñuy moroomi jàmm ñoo ngi am yéene dellusiwaat ak yéen ci beneen njëriñ ci njëriñ yuñ baaxoo ànd ak yéen fii ci seen YouTube le grand secret en wolof di leen sant bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun liggéey bi ak safoo bi ngeen koy safoo ak bàyyi xel bi ngeen koy bàyyi xel di wax ne ñoo ngi jot appel yi ñi nga xamantene ne ñooy woote ñëpp tey lu liggéey bi ak ñi nga xamantene ne ñooy xamle ne ñu ngi gis secret yi di ko jëfandikoo te di ci gis tawfiix sun borom tabaraka wa taala ñi ngi ñaan yàlla suñ borom mu dolli ci barke bu baax ci barke bi alquran karim su ko defee tamit di sant ñi nga xamantene ne ñooy partage vidéo yi ndax loolee ñuy def dafa am solo lool mooy tax yeneen mbokki julit yu jotewul fii mën koo jot mën cee jëriñu te loolee danañ leen ci bindal tuyaaba ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne addaalu ala cheyin ka failihi ginaaw loolu nag ñu fasiyene yéene ñëw ak yéen ci benn njëriñ lu am solo lool ngir faj bépp aajo ak jumu mu mën a doon ak lu mu jafe-jafe ci ndimbalul sun borom tabaraka wa taala lay doon insha allahu taala su ko defee ngeen bal ñu rek ñu leeral ko tuuti ci làmmeñu arab ndax dañuy faral di gis ay commentaire yu bari yoo xam ne sunu yeneen mbokk la ndax xam ngeen internet bi dafa yaatu ñenn ñi di wut ñenn ñi di wax ñu leeral ko ci mbindum walla ci kàllaamay arab ñenn ñi di wax ci kàllaamay nasaraan dañuy sàkku ci ñun ñu def vidéo bi ci kàllaamay arab walla ci nasaraan moo tax léeg-léeg ñu bëgg bu ñu indee ab vidéo ñu def ko ci kàllaamay arab bu ko defee ñoom ñu mën koo comprendre bu baax incha allahu taala kon asalaamaaleykum wa rahmatullah أيها المشاركين في قناة لغران سكر أولف نحيي إليكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله هذا كيفية أو هذه كيفية عظيمة لمن يريد أن يقضي الله تعالى جميع حوائجها كلها إن شاء الله تعالى لمن يريد قضاء حوائجها كلها بإذن الله تبارك وتعالى انظروا كيفية الاستعمال تقرأ سورة الفاتحة سبع مرات ثم تصلي على محمد وآل محمد مئة مرات ثم تقرأ سورة صالح سبعين مرة بعد سبعين مرة تصلي أيضا على محمد وآل محمد مئة مرة إن شاء الله تعالى ثم تقضي حوائجك كلها ثم تقضي حاجتك كلها إن شاء الله يكون العمل بعد صلاة الصبح من يوم الخميس أو يوم الجمعة إن شاء الله تعالى كما قلنا لكم هذه كيفية العزيمة لمن يريد أن يقضي الله تعالى جميع حوائجها آه، ظاهرها وباطنها بإذن الله تبارك وتعالى تقرأ سورة الفاتحة سبع مرات ثم تصلي على محمد وآل محمد مئة مرات ثم تقرأ سورة الصرح سبعين مرات ثم تصلي أيضا على محمد وآل محمد مئة مرات يكون العمل بعد صلاة الصبح من يوم الخميس أو يوم الجمعة إن شاء الله تعالى لم تمضي إلى إلا ثلاثة أيام إلا وحوائجك مقضية إن شاء الله تعالى kon nag mbokk yi ñu leeral ko ci wolof ku bëgg yàlla suñu borom fajal la say aajo ak yu mu mën a doon ak lu mu jafe-jafe dangay jàng dangay jàng suuratul faatixa juróom-ñaari yoon ginnaaw boo jàngee juróom-ñaari yoon suuratul faatixa nga teg ci julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak i ñoñam téeméeri yoon boo jullee ci yonente bi cent fois dangay dellu jàngaat suuratu dangay dellu jàng suuratu sarxi soixante di fois soo jàngee suratu sarxi mooy alam nasra 70 fois nga daal di julliwaat ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam soo paree nag nga ñaan sa yitte ji incha allahu la moom nag bésu alxamis lañ koy def ginnaaw jullik suba wala bésu àjjuma ginnaaw jullik suba kon nag bu ko defee loolu lañ koy defee ku ko def nga ñaan ci sa yitte ak yitte ju mën a doon incha allahu la su ko defee yàlla sunu borom tabaaraka wa taala dina la fajal xaajo joojo ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala su ko fàttali mbokk yi ne képp koo xamanteni ni sun borom dafa dogal nga yittewoo loolee nga xamanteni ne moom lañu leen moom lañu leen doon wax mu aju ci wàllu kuy yaxal kuy kuy kii kuy yaxantu muy Bayré Ndiaye bi képp koo xamante ne ni yittewoo nga ko rek mën ngaa woote ci numéro boobu incha allah taala ñi ko jotee am ñoo ngi woote di sant bu baax baax baax baax kon nekk mel ni kon lu am solo la moom nag képp ku yëngu ci wàllu njaay commerce wala loo mënti yëngu ci wàllu njaay rek moom baax na ci yow asalaamaaleykum wa rahmatullah